وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي يوم دفون قاتم الأنبياء يا دل دف خاتم الأولياء يا ينيون محمد المكي دل يبل محمد المكي كلي defar xuray si ma yoon yoneen ya seen kéemaan ya kile defar xawsi seen xarbaaq ya kële yoroon tay bate boolek makka kile yoroon tuuba yoraale mbakke kële taxaw ba xawlu toolab sunna kilee fi ñëw bayaat lu toolab sunna këlee rañaane makka jëm madiina kilee rañaane mbakka jëm ci diina këlee waroon ci alburax jëm asamaaw kilee waroon ci gaal yi nooni di ko këlee jihaara gaay di faray bakkan kile jare ab jaare bakkan kële rayub noonam ëboo badar kii tuubalum noonam te bëccul gobar kële fi wàcce alquran bil waxi kile ko bindulu wadal nu wan luy farataak luy sunna kile fi jëf luy farataak luy sunna kële nu ràññeen lu haram akub ci been kilee fi ñu bay haram bay ci been këlee fi xamal nu yàlla kilee fi ñu taalif xamal nu yàlla billaa kookaay xayrul anbiyaa'i wallaahi kii mooy xayrul awliyaa'i maa ngi dagaan sëriñ bi ndax mu may ma ci darajaam lu tax ku nekk xam ma ngir mën na ma defal ngërëm ful ma te mën na ma layal ba yàlla fal ma te bu ko neexoon mu defal ma xar baax borom Tuubaa suma bu ne it am ko doy naag baax te bu ko neexoon mu defal ma bayre ma siiw a siiw ba mel ni mamat kayre te bu ko neexoon tey maraw mbay jaxate ngir moo ko jox lam ame moo maay joxati kenn mënu kañ yow sa géej du nëxati sang bi lu ne waxoon nañ ko te maa ngi waxati yow mi janoog sang bi waay laa jal ma caabi ya xej ya yoroon jébbal ma seetal li gën ci man te far yërëm ma te bul ma nattu bul ma rey raas ma sëriñ bi waman ma maaw ci ngir ma ngir gumbala jiite ma wan ma buur ba te pakk bu maay bëgg fil buddil ma te buntu buñ may bëgg a xaña dajjil ma gunge ma jiite ma bon ma pey ba te lapputoo ma fa xamal ma bur ba wonale ma tejje jox ma mbirum tejjel ma ndam ya ma jallo ku mbërëm te may ma katan teural ma mbur ma te buma ma balal ma mbut ma borom tuuba fegal ma natti fegal ma moy xamal ma atte te may ma may ya ma ndombe ma fum deugum ya takal ma ma am ngërëm ya borom jumaa ji tekkil mi daa yi yewi takal ma lu ma tere tekki fi yow tekkil ma sumil ma man yi fi gën solal ma te li nga leen ma sa nëbbit sulil ma xamal ma xam xam bi fi yow jangal ma sang bi te lu ma def bu dek muy jegal ma hubil ma wunte ma wetti gil ma te bepp buntu ba ma dox tëjal ma te barakat ba maay jël jagil ma jambe kane bu ne nërëm bay bëgg jog jogil ma te mbeur mu may bëgg rañan jattal ma yokkal ma saa fan wi mu wéy fenkal ma loo notaloon sa gaay yi nottil ma borom jumaa ji loo nëraloon gaay yi fi de sottil ma sëriñ bi ngir yàlla sarax musal ma tabul ma comp nattil ma sare junne jete jotee nga wal won ma sa xar kanam bi farma muñal sare junne jete jotee nga wal won ma sa xar kanam bi farma muñal foo jublu yalla jublu fo fo mbeurma foo dëddu yalla soti fo fo mbirma nangul sama fo bal nangul joxal ma yonne ma mu jox ko mbeurma ma nexe ma sa ndox mi jarma te sa suma ay beug defenu jirma ndegam nga far mandalma sa dex ji day til tee nga far mandalma ndegam dama ay nga far defar ma sëriñ mi ndegam dama toñ tee nga lay defar le ma woo yàlla yàlla kuray sandarma borom tuba kun mën nga maa Musul ci ab tandarma awoo kaa dadaa layal kuray sandarma borom jumaa ji kun mën nga maa musal ci ab tandarma taxawlu ya qam xam la ma luma ma wax ak la waxul defal ma taxawlu ya qam xam la ma lama wax ak waxul defal ma بسم الله الرحمن الرحيم jërëjëf borom Touba amul moroom jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba ragal piite mën naa tax ba nit ñàkk la ma amoon banaa ñi yëpp tey fafu moy ci buumu borom Touba jaloore borom Touba xanaa rëy gëyeem na leen da ko nee talil boppam ku mën tayi na mum tuuba fa wallaahi ànd ak bi subu ci doy na lay ku juuyoog sëriñ tuuba du ji si gaaye jëm tuuba bu ne xoon boroom tuuba dingat toroxu fasa sëkët yërëma dem jaataxa ndekon kenn du dem Tuuba rëy jëf te wéet ca lool jaaxle woo xanaa men mbubbum ndam mi am yaa ko Tuuba waxoona bu dul kon diw samay الجلد كلي بحمد وشكر إلى ولي